mbokk yi tey jii ni ngeen ko gisee dañuy doon féete dañuy féete suñu fête de l'indépendance muy bés bi Sénégal moomee boppam ginnaaw mbas mi gis na ne ñaari at yi weesu ci biir palais de la République dañu doon def rek levée de couleur tey jii nag ñëw nañu fii ci place de l'indépendance def fi défilé bu yemandi boo xam ne wanewaat nañu taxawaayu l'armée bi taxawaayu gendarmerie nationale taxawaayu police nationale waaye aussi taxawaayu douane ak mbooleem service yi nga xam ne lu mel nu sapeur pompier lu mel nu administration pénitentiaire lu mel nu eaux et forêts ak parcs nationaux yi service d'hygiène lépp luy ñi nga xam ne mooy li ñuy wax takk der di ay homme de tenue yi nga xam ne guddi ak bëccëg ñoom ñoo yor kaaraange réew mi ñooñu wane nañ seen taxawaay ak école yi rawatina le prytanée militaire bi nga xam ne xale yu tuuti lañuy tàggat ngir former leen ñu nekk ëllëg l'élite civile comme militaire muy une école exceptionnelle que je voudrais également féliciter tey jii nag lii ñu wone donte ne génnewuñu oto yeeg machine yi de wane na tey taxawaayu Sénégal taxawaayam ci aar réew mi aar frontière réew mi ci bépp musiba wala tuuxi dono boo xam ne ak fu mu mënti jógee ak nu mu mënti bindoo am nañu tey capacité pour neutraliser n'importe kell menace sur la stabilité de notre pays loolu nag lu am solo la maanaam muy guddi muy bëccëg Sénégal tey jii joxe nañu li war suñu armée taxaw na ànd ak force armée gendarmerie ànd ak police ci wàllu renseignement ci wàllu ordre ak ci wàllu euh, li ñuy wax au niveau de l'ordre public loolu yëpp tey jii force de défense et de sécurité yor nañ kaaraange bu mot a mot ba ci douanier yi ci wàllu koom-koom ak lépp loo xam ne luy jëmale suñu réew kanam la lii day wane rek taxawaayu Sénégal may kañ armée nationale ak gendarmerie nationale ak di kañ de façon générale lii ñu tuddee ay force de défense et de sécurité man mi nga xam ne tey ci coobaru suñu borom ma jiite réew mi te nekk seen kilifa kontaan naa ci seen taxawaay kontaan seen liggéey kon maa ngi leen koy waxaat te di leen yokk wax ñu gën a taxaw pour gën a aar àll bi nga xam ni suñu àll la te ñu war ko sàmm rawatina ci Casamance moom rek lañ fi dese si àll ndax foo dem ci bëj gànnaar gis nañ ne garab yëpp dee nañu wala yàq nañu leen kon nag li des muy bët Saalum mu Sénégal faw ñu sàmm ko ba kenn kenn du ko mën a yàq wala di ko defee ay trafic yoo xam ne Sénégal mënatul nangu loolu kon nag jërëjëf gàcce ngalaama les force de défence et de sécurité ñu ñaan yàlla ëllëg wala boog déwén mu may ñu mbas mi jeex lépp jaar si yoon ñu ñëwaat ci défilé yu mag a mag yi nga xam ni défilé civil lay doon ak militaire ak défilé motorisé pour ñu wanewaat suñu feetu indépendance kon maa ngi ndokkale Sénégal yëpp